téléspectateur la RTT TV ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax bokk di am mbégte ak kontante ci doxantu bi nga xamante ne ni boobu ba léegi ñu ngi nekk ci préparation euh, nuit de la mode ñu gën ko mandargale semaine de l'artisanat muy événement boo xamante ni regroupement des tailleurs initié na ko euh, ay at yu bare bare bare euh, édition bi nga xamante ne mooy édition 2023 ñu toll ci boobu ba léegi ñu ngi doxantu yéen ngi ñu ci seetaan ci la RTT TV ñu doxantu di seet si ñi nga ñooy les participants di seet si wàlla ñi nga mooy sponsor loolu loolu nag moo waral tey suñu jéego tey ñu ñëw fii nga xamante ne nii mooy euh, kër Serigne Fallou euh, di xaar Fall Couture nekk ndaw loo xamante ne nii macha allah dañuy am mbégte ak euh, kontante dajeeg moom ci plateau dajeeg moom ci jotaay parce que macha allah participer na défilé ñëw na euh, dugaat sponsor lan moo soppeeku ci diggante bi euh, dinañ ko euh, xam ci kanam tuuti tuuti ñu ngi leen di nuyu di leen sargal bu baax a baax à travers la RTT TV nuyu waa regroupement des tailleurs nuyu waa marché central nuyu mbokk yi nga xam te ne ñooy topp suñuy émission bu baax a baax a baax bala ñoo sori dañuy présenter leen ki nga xam te ne mooy suñu gantey ki ñu set si doxantu fi nga xam te ne mooy Xarfal Couture xaar ñu ngi leen nuyu. waaw Pape Seck maa lay nuyu ndi la ziar di la jox sa bu baax a baax. di nuyu sama kilifa sama papa Omar Diouf ñu xam gën xam ci lees yal na yàlla yokki leeram kooku lépp moom la kooku daf ma tàggat di gërëm sama patron ki ma jàngal ñoom muy Mor Wade Diouf kooku mooy itam dafa def ci man loo xam ne nii lu baree baree bare xam du ma ko mës a fàtte ci àdduna mm-hmm. yal na yàlla rek ba ci kanam dina gis lépp incha allah rabbi macha ngeen présentation bu am solo boobu ki xam te ni moom la def ndaw la macha allah am na loo xam te ni yàlla def na ko ci moom di ñaanal uh, way juram uh, uh, grand les Diouf yàlla na yàlla xaare ko àjjana yokk ay leeram ndaw yi jàng leen métier te ngeen jéem a tarbiyewu ndax kii ñu taxawal bu ko neexee ni ko mbëri di waxe ni xaalisu ñaw lañ ma ngénte lool sañ na ko wax parce que papaam nekkoon na kàngam ci avenue général de Gaulle promouvoir na métier mi def na ci loo xamante ne nii loolu kenn dootu ko fàtte tàggat ci njabootam parce que ki mu tudd nga xamante ne mooy Mor Wade Diouf jàngal na ko métier tey it yaakaar naa ne Thiès kenn dàq ko fee ñaw kon nag euh, mbir da nga koy hérité ndax doomi mbërëg wàll yu buñ ko dee sukkal di ko raamal maqaamam bàyyam la waaye maqaamam ma mi am bay jiite mbooloo moo koy sàkkul boppam te yaakaar naa ni moom li baayam sosoon innové na ci yokk na ci te li ci kanam raw li ba dinañ ko xam tuuti ci kanam xaar ñu gën a min la ci xaar Fall fan la xaar euh, ganee jamono ak ban trajet def ci li xam te ne mooy historique gam ci lu gàtt rek waaw xaar mi ngi jamono ganee jamono fii ci Ceeskaay Ceeskaay gi laa jamono hmm. xam nga nekk ci sama man nee naa sama maam sax moo ma yar nekk ak sama maam sama maam moo ma yar ba ni mu génne àdduna yàlla na ko yàlla yërëm xara ko àjjana mook sama yaay yëpp maa ngi nii gis nga man jirim laa maa waaye mais sant yàlla ndax ñoom ñëpp nekk am nga foo ma teg ba nga xam ne fi nekk nii bu ñu ñëwoon tamit mm-hmm. ci toxin bu baax lan may fekk ma nekk ci ba ba dundrus ndax yar na ma fan ma war a yare mm-hmm. teg nañ fan ma war a teg mm-hmm. kon nag alhamdulilah sant yàlla bu baax a baax mais xaar ndaw li teel a ñàkk ay way juróom ban ban ban ban yëg-yëg ci moom mais lu métti la lu métti la ndax xew la gisoo sa ndey nga am soxla boo xam te ni gisoo sa ndey gisoo sa baay gisoo kenn mm-hmm. yow kot mm-hmm. yow kot dafa métti mais nag dafa fekk nag ba ngay ndaw ñu teg la ci yoon woo xam ne nii day mel ni ñoom doon xam ne ñoom dañ fiy teel a mhm. yow boo gëmee sa bopp tur rek da ngay dem macha man yàlla bu baax ko xam te ni léeg-léeg yaram day ndax wax dëgg yàlla ndaw la xam nañ ci moom jàmbaar la te wax dëgg yàlla am na solo waaye nag wayjur wi saa yu góorgóor li la fi naa bu ñaay dee xàll mbabal doom jaatax am na loo xamante ne nii bu ko wayjur defee rek bala ngaa gis njariñ li dëgg-dëgg moo leen ginnaaw xale yi daw leen tarbiyewu seen wayjur daw leen topp soppi ñi nga xam ñoom ñooy seeni i wayjur xaar ñu jekki-jekki gis xaar mii miinoon ko ci ñaw euh, cent pour cent civil muy yére jigéen jekki-jekki xaar macha allah yokk boppam dem def ji ay formation innové waat créer benn xaar far new xaar bu bees bi loolu lan nga ñu mën a wax. bala may wax ci loolu dara damay wax ni ndaw ñi nan gën a gërëm gën a dem sàkku ji ñaan ci seeni waajur. Mm-hmm. wuti sëriñ baax na lépp baax na mais say waajur da kenn du ñoom. rawat nañ ndaw ñuy jàngi métier seeni i patron seen waajur mhm. na leen bàyyi xel bu baax fexe ñu am seen ñaan buñ ko amee nag den raw waaw macha innovation bi xaarfaal new look jóge ci civil dem ci xaarfaal boo xamante ne nii day def civil day def euh, euh, complet macha allah nekk styliste nekk jàmbar lan mooy innovation bi waaw innovation mooy daaw dama ñamoon défilé bi mhm. maam fu ma nekkoon heure bii daaw maa ngi feneen nekku moon fii bi ma ko ñemee ma jaaw jóge feneen xam ne avancement am na ma jóge fa nekk feneen fu gën a kawe gis naa ne fu gën a kawe laa nekk ndax tamit ñaw dama tolloon foo xam ne ni dama ñëw ay ñaw jigéen ke laa doon ñaw mais tamit dama xam ne en fait dafa am fu muy toll foo xam ne nii da ngay jóge fa nga nekkoon dem feneen fu gën a xool sa bët bu gën a kawe yokkute mhm. te côté boobu laa jël boole ñëw jigéen ñi boole ñëw góor ñi mhm. léegi nag yor boutique boo xam ne nii loo bëgg rek da ngay ñëw taxaw ma jox la nga dem. lu waay soxla rek dangay ñëw fekk lépp pare. macha allah xaar ma dégg benn secret boo xam ñu ni xaar fal dafa jekki-jekki am vision wu képp ku bëgg a solu xaaratul client bi day xool li nga xam te moo nekk à la mode lekk nekk topp xaar préparé ko ba. loo bëgg ci design loo bëgg ci solo boo ñëwee ci xarfal mu solo la ko loolu lan moo la dugal ci vision boobu. waaw loolu nag maa ngi jàngee ci sama kilifa yi. ci ñoom laa ko jàngee. dafa am ñu bari loo xamante ni doon ko bàyyi woon ginnaaw man ni lii nag pourquoi man ma dem dabu ji ko mhm. ndax am na ñaw fu mu toll fa nekkatu di xoog di xaar ay client mhm. man toogatuma di xaar client wala clientèle man da ngay ñëw fekk ma ñëw la tegal la ndax fi mu nekk foofu la jamono toll loo bëgg muy yëre góor muy yëre jigéen muy ndaw muy mag boo ñëwee da ngay fekk lépp tege mhm. ndax foofu la liggéey bi toll liggéey bi tollatu toog di xaar bu ko defee rek doo liggéey te loolu tamit du avancement ndax jamono ju génn foofu léegi Euh, muy lu am solo muy lu euh, ba ñu dem tuuti euh, dugg tuuti ci li nga xamante ne mooy dëgg-dëgg xar kanamu liggéey bi lan mooy secret bi ba modernité bi taxul nga bàyyi traditionnel bi terewul it nga booleen moderne ak traditionnel créé ci benn œuvre moderne nga ne ñaw bi da nga ciy gis démb gis ci tey lan mooy secret bi. waaw secret mooy formation yi di. Hmm. lu ci am solo la lépp formation la boo yàggee dem formation di nga gis nii fi nekk ñaw hmm. da nga def traditionnel hmm. def moderne def lépp. ba nga xam ne fi mu nekk nii yow fi nekk dara doo ko bàyyi ginnaaw mhm. mooy secret sama ñaw doo xoolee nekk nii machine baa ngi nii mhm. ordinateur la xam nga kon fi mu nekk ñaw jóge nañ ci teg ay jël dagg jox nit mu toog dem di ñaw da ngay jox dem programme ko jox mu liggéey li nga bëgg a mu liggéey ko mhm. bu paree nga rassemble foofu liggéey bi toll man loolu laa gëm quoi dama xam ne kon fi mu ñaw moom fi mu tolloon tollatu fa jóge na fa te da nga ko war a dem dabu ci ko mu gaaw ndax ñun tam ay ndaw nañ dañoo ñoo yaakaar su suñu mag doon ñoo yaakaar ci métier mi ndax dañoo bëgg ñoom itam fi ñu leen fi ñu bàyyiwoon métier feneen comme li may wax naan sama nekk nii métier mi dina xam ne fi mu nekk fi mu nekkoon léegi nekkatu fa ne nii ñoo yaroon ci ñaw ñu jël saatoon fekk la ce que di nga rus wala sa xol dina set waaw à chaque fois damay wax ne chaque jour suñu ñëwee fi dañuy kontaan mhm. dañuy xam ne ñoom mhm. kii seen doom mi ngi ci yoon bi te li ñu ko jàngaloon tamit bàyyi ko ginnaaw bàyyi ko ginnaaw kon di leen xam ne kon kii seen doom dëgg-dëgg fa mu nekkoon léegi jóge na fa mi ngi feneen te lépp ci wàllum ñëw la maanaam tamit ci yar bi mm. yar bi teg na la foo war a lañ la war a teg jàngale le métier nañ la ko a jàngale toog jàng ko ay ati at at at at ban ber la mm. xam nga ne nga nekk si bu xos bu ndaw yàlla dimbali nga nekk feneen jóge fa nekkaat feneen ba am kon sant yàlla rek. macha allah sant yàlla rek. xaar mu mel ni dañoo wax ni da nga réserver ñi nga xam te ne nii ñooy def euh, euh, euh, ñooy revendeurs yi ñooy ñëw jënd ay produits. dem jaayi jiwaat ngir yaxantu parce que du ñëpp ñoom ñoo mën a confectionner du ñëpp ñoom ñoo mën a am produit mel na ni dama dégg ci weewu ba ñu ne xaar dafa réserver ñooñu loo bëgg ci produit boo ñëwee xaar jaay la avec bon prix nga dem à travers ci sous-région bi moo xam Guinée moo xam Mali moo xam Mauritanie sa produit partout mi ngi dem fépp ci Afrique loolu lan lan ngeen ci mën wax. waxuma Afrique sax waaye àdduna sama produit mi ngi fay dem. macha sama produit mu ngi dem fépp ci àdduna bi ndax man lool laa xam loolu laa gëm man liggéey rek laa xam fajar guddee teel a xëy guddee wàcc ndax loolu moom la ma jàngal loolu laa xam kon nag képp ku am loo bëgg rek fii doo fi ñëwee lépp a ngi tege dafa fekk sax yu bari instant yi dafa nekkoon mu dem ma nekk FIDAK Dakar mhm. sama bagage yëpp a ngi FIDAK ba Dakar pour l'instant nii nii mais foire internationale bi nga Dakar kon xam la ah, ah le décembre mhm. ku soxla bagage rek boo ñëwee fii di nga fekk boo demee Dakar mhm. sama client di nekk Dakar ak bagage yaa foofu noonu lu am rek boo ñëwee rek li nga bëgg ma defal la ko ndax ñun liggéey lañ xam même ki nekk à l'extérieur à travers euh, GPI est-ce que tey ji bu ñu defoon benn euh, commande bu lourde pare nga pour réaliser ko pour que mu tegu ci GPI dem à l'étranger léegi nii may wax nii rek am na benn GPI bu ma jox léegi pour mu yóbbul ma ay bagage war a dem France te xam naa ni ne d'ici demain incha allahu bi dina ci jot kon xam loolu nekk loo xam ne liggéey bu gaaw lay nekk loo bëgg rek ñu defal ko vite fait jox la ko def so foofu nekk ci àdduna boo commandé ñu jox lay say bagage fa nga ko bëggee mm. ni ko bëggee ñu defal la ko noonu mu jeex ban conseil ngay wax ndaw ñi nga xamante ne ni ñu ngi góorgóorlu war a xëccu jëm ca kanam wala ndaw ñi nga xamante ni jàpp nañ ni toog tekki xewi na ba tax ñuy jël gaal yi wala ñuy dem di bàyyi seen réew te fekk na réew mi ku góorgóorlu rek suñu borom dimbal la ban conseil nga leen di jox conseil bi leen jox mooy ñu toog liggéey kuy jàng nga jàng kuy jàngi métier nga dem jàngi métier mais tamit bañ a yàkkamti affaire bi du yàkkamti quoi da ngay toog nga xam nga ñafe ñun jàng leen métier dix ans lan jàngi métier dix ans yi woo kong lan jàngi métier ñu berñu ñu demaan tarbiyu yu suñ papa toog fa trois ans loolu nag treize ans la ñu toog di ko tarbiyu xam nga kon jàng métier du ay caaxaan yàqamti tamit yàqu la rek yàqamti yàqule li ma gëm mooy nga liggéey gëm ni lii day baax nga concentré wu ci te bañ a nekk ci bari ay fréquentation ay fooy yu bare yooyu noonu amul njariñ li ma gëm mooy ñëpp muy mag muy ndaw bañ a découragé affaire du découragé xam nga lions yi defoon man ko wuti ndam li mm-hmm. danoo war a man ñun ñëpp dem xam ne lii tekki la toog tekki mm-hmm. man ko toog tekki laa gëm man lépp lépp a ngi fii mm-hmm. la ñuy bañ fii nii bu mu deggee foofu mu ma lu ñuy wuti ji kon boo toogee fii nii da ngay seen fi mu nekk nii Sénégal boo gisoo fi benn Guinéen buy sommet gisoo fi benn Guinéen buy sommet ñu ngi liggéey te xeebuñu dara ah, Sénégalais yi rek ngay seen ñuy xeeb ñuy xeeb gisoo fi benn Guinéen buy taxawal fii di xeeb benn métier gisoo fi kenn kuy sommet bu nekku ci jaay. y' a pas de sot métier y' a pas de sot métier. Mm-hmm. bu nekku ci njaay mi ngi ci jagataay waaye mi ngi ci leneen booy danoo bëgg am xaalis léegi léegi ni te duñ liggéey. loolu nag jëmulul fenn ci Sénégal. macha allah regroupement de tailleurs jëm ci vingt 24 décembre. min nga ko min nañ ko Sénégal min nañ ko Thiès min nañ ko daaw nekk nga participant ren nga siwaat nekk ki nga xam te ne moom mooy sponsor ànd ak guddi nga xam ni bàyyi woo groupement des tailleurs ren ñu innové dem ci semaine de l'artisanat gën a yaatal mbir yi ban yëgee nga ci am ak ban kontaante bu baax laa jëm dama ci am kontaante bu wéree wéree wér ki participé woon daaw ñëw ren nekk sponsor kon loolu am na lu xam yokkute am na uh-huh. dañuy ñaan yàlla nag ñu gën a mm-hmm. innové di gën a yokk mbir muy gën a baax mm-hmm. ñun loolu la gëm mais défilé bi dama cee kontaan mm-hmm. dama cee kontaan président euh, Mamadou Seck di mhm. Mbaye ancien président Ablaye Ngom euh, Ndiaga Wade ah, ñoom ñëpp ah ñë bàyyiwuma kenn ñëpp gàcce nga la ba ndax kenn ku nekk fa nga jàpp yaa ngi mm. jàpp di bëgg rek regroupement bi jëm kanam te association bu wóor la ñu yor bu bu bu ma naw bu am bu ma naw man bu ma naw mm. man ginnaaw yàlla nag dama wax dëgg dëgg yàlla tax rek ñoom yóbbu na ma fu kawe nag yóbbu na ma tamit fu sori ndax bi ma duggee ci regroupement bi léegi amu leen lu ci rëccu te képp ku ma xam mu nekk téer dama naan la demal nga dugg ci regroupement bi mhm. ndax doy caaxaan macha allah macha allah kon nuit de la mode 24 décembre nan la ñu war a euh, xaare xaare xaar Fall mu nekk ki xam te moom mooy euh, partenaire euh, nekk sponsor ci biir lan ngay waajal pour nuit de la mode 24 décembre ah mais nuit de la mode moom loolu moom dañ ko denc rek xam ne lu rëy lay nekk lu rëy lay nekk mhm. loolu bu soobee yàlla incha allahu rabbi moom nan ko denc rek mhm. ba bis ba léppay baax incha allahu rabbi adresse bi nga xam te ni ku soxla Khar Fall fan ngay jaar adresse bi mi ngi nekk rond point cinq cent daje bi mhm. ci kër bi dugg sëri rek première cantine deuxième cantine ma nekk foofu noonu am na table boo xamante ne ni ku yegg si di nga am repère merci ku ñëw di nga xool rapport bi xaar Couture kër Serigne Fallou Khar Couture waaw kon dafa mel ni sunu ginaaw am na décor bu am solo ci li nga xam te ne moom mooy ay tëni mel ni gis ngeen ko ni sama man gis nga jigéen ñi motif yu rafet yi nga xam te ni moom la euh, lii nag dinañ ci dem waaye li fi ñuy dem dañuy avancer tuuti xaar ndax lii euh, mbokk yi may setaan ordinateur la ordinateur la boo xam te ni gis nga robe bi benn design lay nekk boo xam te ni day représenté gis nga ko nii ci diversité ak euh, couleur yi nga xam te moom la xaar composé xaar dañuy avancer tuuti nga présenté ñu machine bi nga xam te mooy machine ordinateur de nouvelle génération ñu gis ko nii Euh, yeggsil fi xaar lan nga ñu mën a wax ci euh, sa machine ordinateur bi ak pourquoi motif yi rek nga créer motif design noonu sànni. waaye gis nga ne machine yi moom mi ngi nii gis nga nii da ngay ñëw xool motif bi nga bëgg nga dëggu nga créer uh-huh. boo soxlaa motif fii ngay dugg rek uh-huh. fii ngay dugg nii ci biir rek nga créer li nga bëgg uh-huh. créer lépp léegi loo soxla rek da ngay def ok rek mu demal la soo soxlawul nga génnaat next nga génnaat li nga motif bi ma soxla fii nii moom mooy génn fii nii motif bi mooy génn fii nii nii tableau baa ngi nii gis nga léegi boo soxlaa mu def da ngay dugg rek xool bi xool bi nga bëgg mi ngi nii da ngay dem xool li nga bëgg yaay xool mu def yaay nii loo bëgg rek dangay ngay am léegi boo soxlaa fii rek dangay ñëw ok jeex na boo soxlul nga génnaat léegi mu def bi may ñëw moom mooy génn fii nii macha allah am am na am na solo am na solo gis nga ko sama man yéen ñi may seetaan gis nga motif bi euh, ak euh, rafetaay motif bi vraiment mais waaw deux couleurs rek ton sur ton ak deuxième couleur am mais ba léegi yaa ngi ci gaamu vert bi mhm. waa nga def euh, vert Hollywood bi ak vert foncé bi nga xam te ne lépp ci gaamu vert la ak vert singom bi nga xam te ne moom mooy base tissu bi mhm. macha allah xale yi jàngi leen métier def li nga xam moom mooy création ak modernité xaar lii dinañ ci taxaw tuuti ñu gis. ñu bari nañ daan jël tissu ñaw ko ba tissu bi réer euh, valeur tissu bi du génn mais dañu gis xaar ci particularité mooy ay design rek lay def sànni ay xët dugal ay mbedd lan mooy secret sama secret moom moom à chaque man ba ma dalee ñaw ba léegi man sama ñaw du xumb lu simple laa lay defal créé ci lu rafet jox la nga dem mm-hmm. te boo solee dinañ xam ne kii sol na yére te ñaw nag laajutul nag jël benn tissu jël ko ñeew ko ba kenn xamatul tissu bi doo gis xam doo ban fa son tissu la mhm. kon loolu amul sens jëlal nga créé ndaw xam nga bu rafet mhm. bu toll foo toll seen ko loolu mooy ñëw te ñëw tollatul fenn foo xam ne da jël tissu teg ko daaminu ko ba mu bari fees jël mhm. sol ko borom di déranger ndax dafa diis yël lu mu gën a simple gën a rafet. Mhm. foofu la liggéey bi toll quoi. macha la simplicité augmente la valeur de l'homme gis nga ko noonu xarfaal mi ngi noonu xale la boo xamante ni jàmbaar la mi ngi bay waaram mi ngi assuré ñu fekk ko fi nga xamante ni mooy euh, kër sëñ Fallou muy def lu am am solo ci rond point hôpital euh, Saint-Jean def lu am am solo mbokk yi daw leen jege ko boo ñëwee li nga moom mooy produit li nga moom mooy design di fi fekk lin di fi fekk ko ba mu am modernité yow mi nga xam te ne nii da nga bëgg lu rafet chemise yi nga xam te mooy chemise africain yi costume africain yi lépp loo xam te ne moom mooy design bu rafet am na fi euh, d'ailleurs sax euh, jox nañu benn cadeau bi nga xamante ne nii wax dëgg yàlla offrir ñu ko ni ma fekk ndaanaan yow suñu doyen nga suñu lépp nga muy teraanga boo xam te ne bu am am solo la xaar looy tàggoo waaw di leen sant rek di leen gërëm bu baax a baax te xam ne tamit li ngeen def tamit kontaan naa ci trop ngeen ñëw seet si ma dugg suma boutique ñëw seet si ma kontaan naa ci trop di ñaan yàlla bu kenn tardé bu kenn yeex ñàkk lay doon nag te xam naa tamit am nay surprise cadeau yoo xam ne fa laa kon nag maa ñaan yàlla ñëpp nag ñu fekk ci jàmm ak salaam ñu teel a ñëw dóor bis mu jeex tàkk maa sant yàlla bu baax di gërëm sama soxna mm-hmm. jàppale na ma bu baax a baax aw yombe rafet kaar neex dëkkal jàppale ma baax a baax a baax non kooku moom uh-huh. daf ma jàppale uh-huh. daf ma jàppale bu baax a uh-huh. baax ndax moom comprendre na ma ba dara dum dara woon maa moom ba tey jii kon nag bu dara amee kon tamit dama koy sant di ko gërëm bu baax xaar na ko fi quoi derrière sa grand homme y a une grande dame jàmbaar la jigéen ju baax la jàppale na borom këram ni ko Xaar Fall waxee dégg ngeen na li nga xam mooy challenge bi xarfal Fall yi nga xam te ne mi ngi koy préparé ak surprise yi manufacture la koy joxe nuit de la mode ngi noonu euh, rendez-vous 24 euh, décembre euh, semaine de na préparé leen ko yàgg nañ leen ko wax tournoi de foot ngi ci biir conférence des leaders ngi ci biir consultation gratuite don de sang ak lépp li nga xam moom la war a àndal mbokk yi regroupement baa ngi noonu événement baa ngi noonu ñu jox leen dig daje ci beneen participant ak beneen sponsor merci ñu dem dellu si